di ko ñaan mu barkeelal ñu suñu dund tënk saytaane suñu diggante ak moom ñoo ngi bég bu baax a baax ci ni ngeen di toppee eh, jotaay bi di ci ànd ak ñun di ko rafetlu bu baax di leen ñaanal bu baax it di sàkkuwaat ci yéen ñaan ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu sàmm di siyaare bu baax a baax soppee Al baax yëpp rawatina suñu jigéen ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel jotaay bi def ko muy seen wéttal ma tudde leen yaayi Al Misbah yi. yal na yàlla barkeelal leen jiital ci soxna Ana Dia niñ ko baaxoo defee docteur waaye soxna Xadi Silla foofu ci parcelle soxna Aram Silla sama Silla Silla yu baax yooyu yëpp maa ngi leen di di bég bu baax a baax ci ñi nga xam ne ñu ngi wétli ko def jotaay bi muy seen wéttal maam ki ne ci am moo ko tudde woon mos baax yal na yàlla defal ko barke te defal ñu ak mbaax ñun ñëpp ñoo ngi leen di bégewaat di masawwaat àdduna si yëpp niñ ko baaxoo defee rek ñi nga xamante ne moom la ñuy dund nga xam ne xaw naa metti ndax dañoo indil beneen melokaan boo xam ne tàmmuñu ko woon waaye olof ñooy wax ne ku amul li la gënal am li fa sës ku amul li la gënal rek am li fa sës li fa sës nag bu boobaa yàlla na doon li gën waaye loola moom ñàkk pexe pexe la lay doon yàlla nañu yàlla boole sàmm démb bi ñu yëkkati jotaay bi dama doon waxtaane lu jëm ci li ñuy wax listixaar ma wala istixaara ta mooy rek tàggatu wala tànn loo am mbir sa borom subxanahu wa taala lima indi woon ci ma ko doon waxtaane dama doon waxtaane lu jëm ci wàllu julli nekkoon ci julli yi naafile yi waxtaane woon naafile yi nga xam ne daa taqaloo ak farata waxtaane woon naafile yi taqaloowut ak farata yi jullig listixaar nekk julli goo xam ne ak naafila la waaye ki koy def dafa am aajo maanaam dafa am lu muy sàkku wala lu mu bëgg mu leer ci moom wala muy doxale boroomam digganteem ak loolee nga xam ne ci la jëm waxoon naa la ne julli googu ñaari rakkaa lay doon yoo xamante ne guddeeg bëccëg ci yam na doon rek waxtu woo xam ne dagan naa naafi la boo ko jullee ba noppi nga jàng ñaan gi nga xam ne moom laa la joxoon démb te baam lan la ko ay yooni yooni yooni yoon te mooy nga jàng ñaan gi ba mu jeex te ñaan gi du dara lu dul ne yàlla maa ngi lay tànnaloo ci sa xam-xam bi di la tànnaloo ci sa kàttan gi di la ñaan ci sa ngëneel yu màgg yi ndax xam naa ne yow rek yaa mën a dogal am mbir ku dul yow ab dogal nekkut ci loxoom yow rek yaa xam ku dut yow ak xamam daa am fu mu yem waaye yow yaa xam kumpa maa ngi lay wax ne mbir mi may dugg su fekkee gën na ci man gën ci sama diine ak sama dund nang ma ko gaawalal te jàppandilal ma ko su fekkee gënut ci man gënut ci sama diine gënut ci sama àdduna maa ngi lay ñaan nga soppil ma ko te indil ma leneen lu ko gën daal dem doxi soxla sax loolu mooy ñaan gi biñ ci noppee nag ci laa ak yow ci ci bëgg a yi nga xam ne moom lay sàmmonteel te dool du dara lu lenn ci eh, li ñuy wax sart yi ma waxoon la ne li njëkk dañuy bëgg an takuna al istixaara fi umuril mubaaha maanaam li muy tànnloo boroomam di ci listixaar mu nekk mbir moo xam ne mbir mu dagan la laa fil umuril muharrama boom listixaar mukk ci loo xam ne dafa xaram di ca tànnloo boroomam ndax suñ di fut ci yi nga xam ne dafa araam ak jaamu yàlla ba tax muy julli ndax loolu bu ñaareel bi ma waxoon la ne kii istixaara na mbir mi doon loo xam ne lu leer la lu mën a tudd ba noppi doon loo xam ne mën nees na caa sàkku aw yiw lu mel ne muy tukki wala takk jabar wala jigéen juy bëgg a dugg cib sëy wala commerce wala yu mel noonu bu ñetteel ba mooy listixaar gi doon ñaan gi nga xam ne moom lañ wax mu bañ a jëfandikoo yeneen i baat su fekkente ne mën na koo jëfandikoo nii ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam tënke ndax xikma ak faayida ak xusuusiye yi ci nekk dañ koo gisul ci geneen ñaan gu mel noonu jëm ci wàllu istixaara googu te yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa xéroon ci jàngal ko saxaaba yi ni ko jaabir waxe ci xadis bi comme ni mu xére woon ci jàngale alquranul karim beneen bi ci topp mooy kii istixaar doon koo xam ne da ciy jublu ak xam mi la muy defi mu doon aw yiw ba noppi mu jublu ci boroomam subhaanahu wa taala moo tax ma waxoon la ne bu listixaaree ba noppi na dem toog te bàyyee boppam boroomam bu mbir ma fommee bu mu jàpp ne daa gënoon ci moom ba noppi fomm mu di ko naqari ndax suñ borom nee na léeg-léeg ngeen bëgg dara te fekk gënul ci yéen léeg-léeg ngeen bañ dara te fekk moo gën ci yéen waxoon naa la ko waata an tukrahu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun bi may daaneel jotaay bi ma ne la woon kii def istixaar nekkut ne far force dafa war a gis dara buy nelaw maanaam damay tari damay julli julli ji après nga tëdd di gént ñu am luñ lay woon ci lu baax ak lu bon nga door a wax ne bi ma tëddee ci laa ko gis wala dama laa fanaanoo bi ma xëyee laay nettali loolu moom bokkul ci li nga xam ne sart la ci nit nag mën naa gént ndax gént moom gént yëpp ay wax la gént yëpp ay wax la mën ngaa gént tekkilu ko gént gi doon lu aju ci sa jëf ji tey wala sa jëfi suba ji wala sa jëf ji weesu wala jëf ji war a ñëw fii ba ñeent fukki at wala lu ko ëpp yooyu yëpp gént la koy indi moo tax daal boo tànn loo borom bi subxanahu wa taala ba noppi da ngay yaatal sa dënd nag féex daal di jàpp ne tànn loo nga ko li ci war lépp moom dana ko def nga doon koo xam ne da ngay wàkkiirlu ci moom doyloo ko xam ne doy na la fa ida azamta fa tawakkal ala allahi inna allaha yuhibbul mutawakkilin boo defee sa li ngay def ba noppi ba jël décision na nga bàyyee sa borom sa bopp na nga wéeru ci moom te xam ne ko man di bàyyee sa bopp bàyyee sa bopp sa borom ko gën waaw koo man de bàyyee sa bopp rek bàyyee sa sa borom moo ko gën ndax moom xam na li gën te mën na la ko defal loolu mooy julli gi nga xam ne mooy julli istixaar loolu mooy njàngale mi nga xam ne moom lañ ci doon toftal ci niñ koy defee ak yi nga xam ne dañ ko cee sopp geneen julli gi ci topp mooy jullik tuub jullik tuub maanaam nit ki itam daa war di tuub waaye dañoo sopp ci jaam bi bu demee ba dogu ci bëgg a tuub ay bàkkaaram mu jàpp mu dem jàpp njàpp mu rafet bu noppee mu ñëw taxaw ci kanam boroomam subhaanahu wa taala julli ñaari rakka julli ñaari rakka wala lu ko ëpp waaw gën gaa tuuti ñaari rakka waaye mën naa naafila ba naafila lu ko ëpp waaye yéene ji am ci naafila ji tey moo yéene tuub moo xam bàkkaar bu mu xam la mu ne ci xelam mu yéene ko ci fas bàkkaar boobu moo xam bàkkaar yim def daa bari waaye mu yéene ci bàkkaaram yooyu mu yéene ci bàkkaaram yooyu ndax mooy li gën te mooy waxtu wi nga xam ne ci la jaam bi di gën a jege boroomam mawlaana subhaanahu wa taala julli itam daa bokk ci li jokkale jaam bi ak boroomam jullee ci gën a rëy mooy wasila li nayli afwihi wa maxfiratihi wa rida day jokkale jaam bi digganteem ak boroomam ngir mu am ak njéggalam ngir mu am ak baalam muy suturaam ngir mu kontaan ci moom moo tax saxaab bu ñu wax abi bakra radiallahu anhu moo wa arda dégg naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam muy wax ne koo xam ne dafa def bàkkaar mu jàpp wala mu sangu ba sell mu julli ginnaaw ba mu jéggulu boroomam subhaanahu wa taala suñ borom dana ko jéggal ay bàkkaaram allahu akbar yonent bi nee na bàkkaar bu waaye mën a def ak nu bàkkaar bi mën a toll bu jàppee ba sell julli jéggalu boroomam suñ borom jéggal ko moo tax léegi mun la nga julli tàmbulee ci ñaari ràkka ne la aw ak sara wala lu ko ëpp jàpp boo ko mën a def guddi xaaj ba ca mujj baax na mooy waxtu wi ñu nekk wala wi ko féete ginnaaw tuuti nga julli boo noppee ñaan boroom ñaan sa borom subxanahu wa taala jéggalu ko waaw nga jooy jéggalu sa borom subxanahu wa taala suñ borom jéggal ko. nee na bi mu waxee ba pare aaya ji la ca teg moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne walladina isaa faalu faisatan aw zalamu anfusahum zakaru llaha fastaxfiru li zunubihim wa man yaxfiru zunuba illa allah walam yusirru ala ma faalu wa hum yaalamuun ulaika jazaauhum maxfiratum min rabbihim wa jannatin tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha wa nixma ajrul aamiliin xadis boobu imaam abu daawuda ak nisaa ñoom ñëpp nettali nañ ko mu ne dégg naa yonent bi di wax ne ma min rajulin yudnabu zanban summa yaquumu fa yatatahhar summa yusalli summa yastaxfirullaha illa xufira la nee na amut kenn koo xam ne dana def bàkkaar ak lu bàkkaar ba rëy mu laablu ba set mooy sangu wala jàpp lu mu ci war a def mu def ko bu noppee mu julli jéggalu boroomam lu dul ne suñ boroom dana ko jéggal daal cay teg ne ñi nga xam ne dañoo def ay ñaawteef muy bàkkaar wala ñu tooñ seen bopp te mooy bokkaale wala ñu def bàkkaar bu mën di doon gannaaw ba ñu fàttaliku yàlla day sa ñëw taxaw julli jéggalu ko seeni bàkkaar xam ne amul kenn kuy jéggale bàkkaar ku dul yàlla nee na te nuuruñu ci biir bàkkaar bi ku ko def borom bi subxanahu wa taala nee ma jéggal la du ma yem ci jéggal la waaye fay gi ma lay faye mooy suturaal la allahu akbar suturaal la ndeke dama laa jéggal moo tax mu suturaal la ba ñëpp yaakaar ne da ngaa la bàkkaar bi nga defoon tey bañ mu feeñ du ma waaye ma tabbal la aljanna maxfiratun min rabbihim waaye wa jannatin tajri min tahti al anhaaru xaalidin yal nañ ko yàlla defal moo tax nañu jéggul suñu borom subxanahu wa taala suñu ay bàkkaar. jéggulu sax astaxfirullah ci la bokk waaye tuub day ànd ak yéene tuub day ànd ak kii tuub day yéene ci xolam jëru mu di ko wax ci walaam ñoom wala nit ñi di ko dégg ne man décidé naa bàyyi nangam ji ndax dafa xaraam garam place sàngam maa ngi dogu ne dootuma fa toog ndax toog ga ma fay toog daf may yóbbu may wax lu xaraam wala nangam euh, maanaam euh, liggéey sangam dogu naa ne bàyyi naa ko ndax liggéey boobu dafa xaram te daf ma indil bàkkaar wax sàngam maa ko waxoon maa ngi koy réccu ba ci kanam sama borom décision yooyu nit ci di jël ci dellu ginnaaw ci ñaaw teef yi nga xam ne moo jaar ci moom loolu mooy ak tuub mu laytaaye ko nag ñaari rakk ndax jege ko boromam ne ko maa ngi la koy tuubale bu noppee nag mu fas ko ci xolam réccu lu mu ko doon defee yéene ne dootu ci dellooti loolu mooy ak tuub yal nañu yàlla boole jéggal suñu ay bàkkaar yi feeñ ak suñu bakaar yi nga xam ne moo nëbbu ndax moom mooy jéggale ji am na koo xam ne fi mu ne ñëpp a koy coow ak i bàkkaar ba jëratut ci àdduna dara te yow mii dégg ñu koy coow yaa ko ëpp ay bàkkaar li nga def ki ñaawteef defut xaaj ba lim def sax ba ni ñi di ko waxtaane def nga junneem waaye yow kenn waxu ko ndax yàllaa la suturaal nga ne ci boo moytuwul sax yaa ko bind ci journal bi nañ ma baal wala boo moytuwul yaa koy revue de presse ab sa ilimaan wan baal ma ak nday mareem boo moytuwul yaay toog sa bureau naan gisoo li def tey nii ci internet bi di ko wone naan gaa yi kay font rek te pourtant yow de li nga def bu feeñoon ñu bàyyi kooku daw topp la waaye sutura si yàlla rek ndeysaan sutura si yàlla ak yërmandeem ak njéggalam moo muuru ci sa kaw ne mbalaan moo tax nga ni la ba kenn yëgut kenn xamut loolu suturaam la na ñu boole suturaam nee na yowmal xiyaam dana woo sama jaam ne ko xanaa du yaa defoon nangam ci àdduna ci bàkkaar waa ji ne waaw man la kay yóoru doo xam mu di ko laaj ba waa ji tiit borom bi ne ko waaye maa la ci àdduna ba kenn xamu ko ñëpp yaakaar ne dangaa baax mu ne waaw mun ne ko demal àjjana suturaal naa la waa di waaxu jëm àjjana nga xam ne day dox di geesu yaakaar ne jéego bu ne rek mën nañ koo dab ne ko sa waay dëppal yow li nga def ci bàkkaar nga naan dangaa jëm àjjana mu dem ba ne daga ci biir àjjana ja allahu akbar xaafiri zanbi wa xaabili taw bi ba ci topp nag dana wax nit ne ko xanaa du yaa defoon bàkkaar nangam ci àdduna di ko limal ba mu bari mu ne ko waaye nag maa fàtte woon ci àdduna tey dinaa la fàtte ci sawara allahu akbar shadidul iqab zid tawli comme xamoo ban la ci nag dee ko jéggulu dee ko tuubal del ñaan mu jéggal la njéggal googu ak tuubal googu ci la julli googu bokk di julli gi nga xam mooy salaatu taw ba ñaari rakka la ci jaam bi julli gannaaw faatixa lu mu ci jàng baax na wala lu ëpp ñaari rakka bu noppee mu ñaan boroomam mu jéggal ko ñaan gi nag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 mën naa waxit laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin yooyu yëpp ay xeeti bàkk la yoo xam ne jéggalu boroomam subhaanahu wa taala borom bi nee na dama koy jéggal yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ku ko def suñ borom jéggal la ca saasa geneen julli gi ci topp moom la ñuy wax salaatul xaaja maanaam ki nga xam ne dafa am soxla su bëgg mu fajo xëy na ci jaaxle la toll bari na ay bor lool waaye xamut na lay def ba borom yi faju xëy na am na këyit wu muy lijjanti wër na ko fu ne mbir mi daa tag daa taga témbe mënu cee jot xëy na am na soxla su jàmp soo xamante ne daal mënta faju moo xam waaw aajo kenn ku nekk ak sa soxla kooku itam bëgg nañ mu toroxlu ci kanam boromam subxanahu wa ñaan ko ay aajoom ñaan ko ay aajoom ci ak toroxlu damm ay pexeem wan yàlla ne ko man samay pexe jeex na ëwma ko woon sax kàttan gi ak sottalu mbir yaa ko yor maa ngi lay ñaan nga jàppandilal ma ba lii may sàkku sotti loolu mooy jullit ki nga xamante ne dafa am aajo ki nga xam ne dafa am aajo julli daa bokk ci li gën a rëy ci yëf yi bokk ci li gën a feeñal toroxlu nit ki ak wommatu gu muy matu ñeel boroomam moo tax ñu ne sopp nañ ki nga xam ne mooy jaam bi dafa am aajo te bëgg aajo ji faju mu taxaw ci kanam boroomam bay na mawlaahu subhaanahu wa taala taxaw ci kanam boroomam julli ñaari rakka ñaar rakk yoo xam ne yéene ji am ci xolam mooy yéene faj aajo ñaan borom bi mu fajal ko samay aajo maa ngi julli di ñaan sama borom ci barki julli gii ma koy defal mu fajal ma sama aajo bi teewal loolu ci xolam bu sujootee mu ñaan boromam lu ko neex julli googu julli naafila la julli la goo xam ne aajo jee tax nga di ko def moom nga ci yéene kon boo sujjootee foofu mën ngaa tudd aajo ji moo xam ci arab mën nga koo tudd ci olof mën nga koo tudd ci pulaar mën nga koo tudd ci séeréer mën nga koo ci làkk woo dégg ndax yàlla dégg na làkk yépp ndax jaam bi jamono jim sujjootee foofu lay gën a jege boroomam subhaanahu wa taala fa inna aqraba maa yakunu al abdu min rabbihi wa huwa saajid waxtu wi mu waxtu woowu la gën a jege boroomam subhaanahu wa taala bu ko defee mu tudd foofu aajoom jooju soxlaam soosu waaw jabbutu jabbutu ñaan ko boroomam subhaanahu wa taala loolu li koy tegtalee xadis la boo xam ne imaam Ahmad indi na ko sukkandikoo ko nee na ci fu mu bokk ci xadis yi nga xam ne saxaaba bu ñuy wax abi darda radiallahu anhu moo ko jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam yonente bi nee na man tawaddaa fa asbaxal wudu summa sala rakaatayni yatamahuma wa ahtaahu llahu ma saala muajjilan aw muaqira nee na koo xamante ne jàpp na jàpp mu sell julli ñaari rakka julli ñaari rakka yu ànd akuk toroxlu ànd akuk dallu ñaan aajo ji nga xam ne moom la bëgg mu faju nee na suñ borom dana ko jox li muy ñaan moo xam mu gaaw la moo xam mu yeex waaye ñaan googu moom nangu na waaw ñaan googu nangu na xam naa mën ngaa wax ñaanal ma wala ngay dem di ñaanlu ji waaye indi naa la yu bari yoo xam ne boo ci moyee rek mu tàmbulee doon laytaay ji li ci des nag nga ñëw ñu mottalante incha allah moo tax jullik tuuba ngi noonu jullik faj aajoo ngi noonu ki am ay soxla yu fajwut wala mu bari ay bor wala mu ami gàllankoor wala léeg ci njaboot gi wala léeg-léeg ci jëmbi boppam mag lu mu di doon ñaari rakkaay lay julli jàng faatixa lu ci teg baax na xam naa léegi nga laaj ma ban waxtu la koy julli waxtu wum ko jullee baax na waxtu wum déggul ñu ne bañ nañ ko ci naafila rek mën na koo julli bu dee guddi gi moo gën bu dee guddi gi xaaj bi mujj moo gën xaaj bi mujj mooy bala ñoo julli suba eh, guddi gi nag mooy bu geexasee jot ba ba ñuy julli suba waxtu woowu yëpp fu fi julli baax na bu noppee mu ñaan boroomam subxanahu mu fajal ko aajoom ji nga xam ne moom la ciy dugal. yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na ataahu llahu ma shaa Allah muajjilan aw muwaqira suñu borom dana ko jox la nga xam ne moom lay ñaan moo xam mu gaaw wala mu yeex waaye la muy ñaan moom dana nango loolu mooy ñaareelu julli di beneen julli gi nga xam ne mooy julli aajo ginnaaw bu ñu noppee ci julli tuub ak julli gi nga xam ne mooy julli istixaara am na geneen julli goo xam ne moom la ñuy xaw a mujjee ci juli yi nga xam ne dafa beru mooy julli gi nga xam ne moom lañuy wax salaatu tasbiix salaatu tasbiix ci naafile yi la bokk waaye itam nekk julli goo xam ne julli gu am solo la goo xam ne ay xadis yu baree baree baree bari ñëw na ci yoo xam ne da koy jàngale bi ma la doon wax léegi dama la wax salaatul istixaara julli goo xam ne dangay ngay tànnaloo sa borom salaatu tawba julli goo xam ne nit ki da koy tuubale boromam salaatul xaaja julli goo xam ne nit ki daa am soxla di ñaan boroomam ngir mu faju salaatu tasbiix di julli goo xam ne ay sabal borom bi subxanahu wa rek moo ci nekk moom it julli la dinaa ci ñëw ci jàngal nan lañ koy defee wax la lenn ci ay ngëneelam julli goo xam ne xadis yu bari ñëw na ci waaye ba ca gën a siiw te ñu wéral ko mooy xadis bi nga xam ne Ikrima moo ko jëlee ci Abbas radiallahu anhuma abbas bàyyi la woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax abdul mutalib ba ko jur abdul mutalib moo jur abdallah mu jur yonent yàlla muhammad abdul mutalib moom moo jur abbas mi kon abbas ak bàyyi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoo bokk bàyyi seen bàyyi saybatul xamdi di abdul mutalib abbas moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne doon wax ak moom moom abbas moom mu ne ko yaa abbas ndax noonu la tuddoon yëmu ca waaye mu ne ko yaa ammaahu yow sama baay tëx mooy sama papa sama fereeru papa abbas wuyu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ndax duma la may ndax duma la jox ndax duma la baaxe ndax duma la baaxe waaw nga xamante ne wax na ko waxee na ko nu ne ne ko jëf joo xam ne ku ko jëf suñ borom baal la sa bàkkaar yu njëkk baal la sa bàkkaar yu mujj waaw ku ko jëf suñ borom balla sa bàkkaar yu njëkk balla sa bàkkaar yu mujj loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax baayam bi nga xam ne mooy abbas abbas mel ne ku ne ko ah loolu kay gëmeewu ko jëf ji la mu ne ko mooy nga julli ñeenti rakka rakka bu ne nga jàng ci fatiha aku saar kon booy julli salaat tasbix da ngay jàng fatiha teg ci aw saar boo noppee ci njàng mi mooy fatiha ak saar wi boo noppee ci njàng mi fekk yaa ngi taxaw hmm? nga eh, nga daal di nga daal wax subhanallah walhamdulillah wa wala ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon ak juróom maanaam boo xawee jàng faatixa ku saar da ngay def subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha wallahu akbar ba muy fukki yoon ak juróom nga rukkoo rukkoo mooy jàpp ci say woom nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ba muy fukki yoon kon boo rukkoo fukki yoon nga koy wax nga siggi ci rukkoo bi taxaw wax ko fukki yoon dem sujjóot wax ko fukki siggi ci sujjóot bi toog wax ko fukki yoon door a jógaat taxaw nga xamante ne ràkk bu nekk day am juróom ñaar fukki yoon ak juróom dafa war a am ci ràkk bu nekk loolu mooy li nga xam ne mooy salaatu tasbih danaa ci ñëwaat jaaraatal la ci léegi mu ne ko boo ko manee na koy def àjjuma ju jot àjjuma ju jot na koy def daf ko njëkk wax ne ko boo ko manee na nga koy def bis bu set boo ko mënut na koy def ajuma ju jot boo ko mënut na koy def weer wu jot boo ko mënut na koy def at mu jot boo ko mënut na ko def benn yoon ci sa dund alayhi salaatu wasalaam nee na ku ko julli suñ borom balla sa bàkkaar yu njëkk balla sa bàkkaar yu mujj yal nañ yàlla boole jéggal mooy da ngay taxaw jàng alfaatixa ba mu jeex nga jàng aw saar ci taxawaay bi nga def ko fukki yoon ak juróom yeneen ci des yëpp fukk-fukk ngay def boo rukkooyee fukk boo siggee ci rukkoo fukk boo sujjootee fukk boo siggee ci sujjoot fukk sujjootaat fukk siggi ci sujjoot toog deg fukk door a jóg taxaw noonu la ñuy jullee li nga xam ne mooy salaatu tasbih démb bi ñu yëkkati jotaay bi bàyyi woon naa fi sama numéro kenn ku nekk ci ñun kam dendal te muy doomi soxna ci waa daara ji kum ci jege dana ko gën a laaye biir yàlla ñu yàlla boole nangul te boole ñu sàmm boole ñu defal tawféex bu ñu yàlla mayee ñu dund ba suba yàlla ñu dund ba suba te weesu ko ñu wéyal suñ bind yooyu ci julli yi nga xam ne ay julli na waa fil la ñaan borom bi subxanahu wa taala mu boole ñu nangul jaajëfal leen bu baax jaajëfal Oustaz Alioune Sall moom la ñu bàyyee barab bi mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko ñaan suñu borom subxanahu wa taala mu sàmm ko te sàmm ñu ñaan ko mu defal ñu jàmme àdduna ak jàmme àllaaxira defal ñu suturos àdduna ak suturos àllaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum. wa rahmatullahi taala wa barakatuh